di ziaré nak kenn ko xamné ne kenn la ci man di Abdou ndjay euh borom épicerie Serigne Abdou fata mbaki fallilu ma ngi lay ziaré bu baax sa Abdou Fatah moo nekk buñ ko sa Abdou Fatah am nañ supermarché nak khayra am nañ benn yoonu nit sama xarita mom sa soppee la begela, ku lay bëggé la ku lay bëggé la euh, di nuyu serigne malik, nyep euh, ñëpp di leen ñaanal jamm di la bayyi nak nga nuyu wa réew mi ak wa bitim réew jërëjëf Arouna ñu ngi lay delloo am nuyoo di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki senegal mbokki bitim réew ñu ngi nuyu fu waaye ni mën a nekk rek mu ngi lay nuyu di la ñaanal suñu borom dafa la jàmm di ñaan waa bitim réew suñu borom dafa leen fa jàmm ñaanal mbooleem seen rek euh, di leen euh, masawu ci xew-xew yi weesu ndax yi fi jàll. daa bari ñi yàlla dogal ñu doon dem ci gaal gi ndeysaan bari ñu ci faatu ñu ngi seeni mbokk waa di leen ñaanal yàlla yërëm leen di ñaan yàlla dal def ci réew bi jàmm aroona sëñ Malick jàmm rek am solo de di nuyu nag kenn koo xam ne kook jàmm la sama waa ji Assane Sylla mooy directeur Ecotra koku la ablay sin wolu jël entreprise ecotra tek ko ci loxom koku nak sama mag la sama xarit la nit ku bax la waye bo gisee sikim bi de seigne malik sikim bi day laal fofu asan sila asan la asan mag lay nuyu bu bax dila dila ñaanal jamm di rafetlu sa liggey ak sa taxaway di rafetlu taxawayu euh abdoulay sila ci biir rew mi ablaye sila xam nga ko ecotra moy ki nga xamne bu magal touba ñewé mbéddi yek tali yu toj yi ci biir dëkk bu sell bi di Touba mooy jël ay matériel am personnel am équipement bi mu am yëpp andi ko sëkk mbedd yi defar tali yu toj yenn bërëb yi nga xam ne ndox ma dafa nekkoon ci nawet bi mu manqué ko yenn secteurs yi nga xam ne amul woon ndox sax ay otom dañ doon roñ ndox di yóbbul nit ñi kon kooku mooy Ablaye Sylla bokk na nag ci ñi laaj réew mi sëñ Malick tey <clears throat> euh, balaa ñoo dugg ci li ñuy waxtaanee waaye dañ leen ko wax lii nag lu am solo la loo xam ne sëñ bee ko andi muy lu yees peq lum mu leen andil dolli ko ci lim doon liggéey ci njariñ yi mu leen doon jox sëriñ Malick tey ñu ngi war a waxtaanee màtt man nag matt moom damaa xamut jàppoon sa loxo bii <laughs> baaraam bi dugal ko sama diggante ñaari bëñ yi la tudd damaa xamut nag matt googu nga war a waxtaanee tey wala màtt gi nga xam ne daa mel ni sànqaleñ tey na ci kaw lal di matt nit. xawma nak gan mat nga ci wara waxtane waye bala ñuko leral dal li lañ bëgg nga leral lañu señ maa lii lu arona aaroona jërëjëf li yalla dafa dogal fi jamon tollu nerf siatik dafa bari nerf siatik waaw dafa bari lool ah, te nerf siatik dafa metti mm-hmm. man mi di wax ak yow dalal na ma waye yalla dogal na tamit ci baaxu suñu borom maa ko fajal sama bopp ci suñu xam-xamu bopp. moom nerf sciatique. nerf sciatique nerf sciatique boo dal doo xam méttiwaay bi foo takk ci méttiwaay rek nerf sciatique weesu na ko comme nag ñun yàlla dafa dogal mënuñoo denc luy jëriñ nit ñi te duñ leen ko baaxee moo tax ñu ne nit ciy loru kenn xamuñu toll. waaw te. bari ñoo xam dañ koy dànk waaye fayu fayuñu ko waaye yàlla dogal na man am naa xam-xam bi day faju ci yaram. yow kon nerf sciatique moom léegi yow pare nga da ko ngir faj ko ba mu wér. waaw dama koy faj ba mu ba mu wér kay incha allahu boobu nag yàlla dogal na. yemb na koo xam ne soxla na ko rek bu jaaree ci yow dina ko mën a am. kon loolu moo taxan mën leen daal naa leen ko indil ndax man mii mu dalan daal yàlla dogal na sunu borom wan na ma xam-xam bi ba ma koy faj. te def nga bu baax. ci njàppandal. nekkul loo xam ne lu jafe am la kon mi ngi noonu sëñ Malick mu ngi leen koy présenté lu yees peq yu mu leen andil yéen ñi nga xam ne yéen a koy topp te safoo ko te doyloo ko muy maladie boobu ñuy wax nerf sciatique képp koo xam ne dal na la mën ngaa woote ci numéro yi incha allah dinañ fexe ba nga am ko jëfandikoo ko kon ni nga xam ne noonu la ko sëriñ di di di di euh, santaane kon mi ngoog sëñ Malick wax nañ ko sank ma ñaari mat yoyu gan mat nga ci bëgg waxtane ñaari xalé yu xex kenn mat morom ja wala ñaari jigen yu xex kenn mat morom ja wala mat bi ci kaw lal ci mëna doon tay ban nga ci indil ñi nga xamne tay ñoy internet yi nga xamne ne lay sétal Arona jërëjëf tay nak mat bi ñi indi mooy euh, manam rabu allah ci bi rabu ali mat bobu nak yalla dogal. ci nit ñi lay nekk ndax nit ñi lañ soxla euh, muy loo xamante bi ñu ko soxantal daa bari ngir ñàkk xam danger mu doon lu garaaw lu danger pourquoi nag ñu war ko waxtaane lam muy def ni mu bonee ci nit moo tax ñu war ko waxtaanee ngir nit lu mu xamul mënu koo ragal lu mu xam nag mooy tax mu mën koo ragal xam na koy moytoo moo tax kon tey ñu indi benn tomb ndax tàmm nañ ko di ko def ak nit ñi di leen indil gàncax waaye di leen indil rabu àll matt nag lu ci ëpp day fay nekk ci bërëb yu tumburanke yi maanaam boo ko doon xool dëgg ci bërëb yi muy nekk mooy bërëb yu salte yi kon gis nga set ni mu amee importance. natt daal ñaari fa salte lay nekk. waaw bu salte lay nekk bërëb sax mën naa salte ak façon salte salteen ba mu soxla du fa nekk waaye bërëb yi nga xam ne ci la ëpp lu muy nekk dafay bokk ci fu ñaq ak suuf di dajaw ñaq ak suuf di dajalaw. lan moo tax ok dinañ ci ñëw. ñaq ak suuf boobu day produire loolu euh, li waral muy nekk ci dénk xam nga lal lu ci ëpp dénk lay doon wala mu nekk ci xar-xari euh, tabax matt dafay soxla dafa soxla récupéré wu maanaam nekk foo xam ne kenn di ko bàyyi xel bu guddee mu mën a génn def liggéeyam te yàlla dafa dogal benn bu jigéen bu nekkantee ci néeg bi benn bu jigéen bu nekkan ci néeg bi balaa mat fukki fan day produir lu mat mille am njuróom dafa gaaw mu mat lu gën a gaaw am njuróom ci rabu àll bariwut hmm? waaw yàlla def ci moom tamit mën naa nekk fenn du lekk mën naa làqatu fenn at te du lekk na tekk ci néeg bi wala mën a tekk ci bërëb ngir lim bëgg gis gisu ko ndax moom ak dundam ki deret la koy la koy dundee moom deret lay naan pour mën a dund deret lay naan pour mën a produire comme ni ko yoo di defee moom lay lekk ko defee màtt moomu nag bari na ñooy gis ñu taxawalu ci mbedd yi di daw di faxasu ñu leen tuddee dof matt fa jaar. matt day dof la waate. day dof la waate bari na fi doon yi koo xam ne boo ko doon wax xam sax li nga wax lan la. léegi ñu taxawal ni foofu mais màtt nu muy mel. waaw kay matt melokaanam bind bi. ron ron bi muy façon ron bi muy roné dafay jël euh, mbonaat mbonaat ku xam mbonaat ni mu ronxee façon bindam loolu lay ronxee. waaye taxul mu toll ni moom la ah, tuutiwaayam dañ koy gam-gamlee ci diggante xorondom xorondom bu ron xorondom boo xam ne dafa lemu rek ku xam xorondom waxuma sangalañ ndax sangalañ xorondom a ko ëpp. waaye tuuti na tuutiwaay boo xamante bi mën nga ko ñàkk a mën a bàyyi xel waaye booy xool ab bindam dafa ron comme ron bu waaye lu tuuti la bari tànk trop noonu la matt mel. Hmm? sànq yaa ngi ko doon wax. nga ne bari nañu ne ci mbedd yi euh, wéradi doof maanaam euh, te matt ko. te matt leen ko teg xam nga fi mu ne nii bi dafa bari loo xamante bi. dafa bari jàngoro yoo xam ñu bari dañuy defee ne lu ci ëpp ñu ngi koy jiiñ njabar yi njabarkat yi te fekk na animal da ciy joué ok animal dana joué ci nit ki dof tey nag matt moomu nag leen indi ñu man cee bàyyi xel gis ne dafay tege stress boo xam dafay dem ba dépassé nit ki waaw moo tax kum dal yàlla bu mu la dal waaye comme dal da nga déglu bu baax waxtaan wi ndax dala la intéressé. gars yi bàyyi leen xel ci matt rab woowu di matt moom la sëñ Malick di waxtaanee ay loraangeem ngir ñu moytu ko ak di wax nan la mel bañ mën koo xam. Euh, couleur bi sax dana ñuul dana xaw a marron ci diggante boobu ci lay nekk. waaw bokkut ak ngar boo xoolee déplacement am tamit gaawut moo tax mag ñi danga daan dégg li ñu daan wax dana matt suuf sax atunu ko dégg nga man ñi dégg nga wax ji ni mu réyee suuf atunu ko waaw du jëmmi daa diis ba suuf atunu ko waaye ay bàkkaaram ndax li muy def tooñ rek lay liggéey waaw tooñ liggéey te it noonu la dansé ci mystique tam noonu la dansé ci côté bu buñ ci duggante yi waaye sañu ñu cee dugg ndax dafa dansé ndax am na loo xam ni ku ko wax yaa yaa ko defloo nit ñi kon du ci ko waaye lu mu danger ci mu lay matt noonu la danger ci boo ko xamee di ko jëfandikoo ci doomu aadama su ko defee nit ki bu demee ba tëdd ba jàppante nelaw matt dafa am nget nit gu gu gu maanaam dafay. day xetu nit gu muy koo xàmmee. da koo xàmmee comme nit ki la. ok matt yi lépp lu mu mën a jëlee foofa deret rek daf koy da koy sentir moo tax néew na mu màtt la bëccëg ndax xam ne doomu aadama guddi rek ci lay tàggu sagoom ngir lan ngir ay nelaw. bu bàyyi ba mu nelaw la. ok man bu màttee day moom fu mu la laal nga yëg ko moo tax da ngay da ngay yeewu te mën nga ko xool doo ko gis mu mel ne invisible. man ba ko sama kaw lal léeg-léeg <laughs> ma am lu ma mat de sëñ bi. su ko defee nag Arouna waxtu wi nga xamante bi ci la tàmm mattee la tax mu danger ba di yóbbu nit ki ci àll boo xamante ni bi mën na koo xiital ci mu koy mu mu mu mu di taxawaalu wala mu waaw mu génn di waxtu loolu matt koy def ndax matt waxtu wi mu la mattee yàlla may na pouvoir boo xam ne bu waxtu woowu dellusiwaatee bu fekkee ni une heure ci guddi la la matt une heure jotaati donte mattu la sa xel dina nekk ci matt yi waaw moom yàlla jox na ko pouvoir boobu ndax dangar ja diisut ba ba bu la laalee nga nga nga ngay onk waaye yàlla daf ko dafa dafa def ci moom pexe yoo xamante bi fu la laal nelaw yi lu xóot xóot xóot da nga faxasu yàlla def ko ci loolee nga xam ne moom ñu tuddee mat te tuuti ba kenn mënu koo jox dayob centimètre kon matt nga su ko defee dina bàyyi ngat ci nit ba nit ba koy daw ban defe ne nit ki dafa feebar feebar waaw waaw matt day xeeñal nit nit ki dina bàyyi ci moom ngat goo xamante ni nit ki dina faju hôpitaloo hôpital te du wér xet gi des ci moom noonu muy bàyyee ci nit ngat nit ki doxa doxa doxa fu nekk mu dugg fa te du mën a wér noonu lu koy umee ci wërsëg ba lu mu laal mu yàqu noonu mu koy umee ba lu mu laal mu yàqut noonu la koy tegee saw katub lal ba fu mu dem stress boobu moo koy téye ba du mën a nelaw bu nit ñi dee nelaw mu tiit ngir defe ne bu tëddee ci lalub bii rek xembali matt day def loolu ndax màtt bon gu mu bon boo ko waxulee nit ñi danañ ko xeeb te buñ ko xeebee rek mooy xeeb sa xal mu mu mu lakk sa dàkk. màtt de naa koo mën a gis ba filmer ko. newut fii ah. néeg <laughs> bi amul màtt heureusement su ko defee matt dina tax jigéen avorté ñu ne rab a koy def. dina tax jigéen avorté waaw ñu ne ah mom de sa bu ëmbé rek day avorté ñu ne raba koy def te fekk mom mat rek la mu ngi tok fi mu toog jàpp njàmbur matt daal day mat rek mom tok di waaw mat arona dana tax nit ki manki dret li ñu woy ani parce que mom ci dret lay dund mat dina tax nit ki sa bu duggé ci am négam pour nelaw mat mo koy japp ba du nelaw balaa nelaw rek nit ñi yeewu mosoo ko nelaw te day xool ci lal bi ba sonn du gis fu ay yëf yi nekk. daa daw daa sew. am na xeeti dorop yoo xam ne boo ko lalee doo waaw moo tax moo tax maa ngi daan wax ne. am yoo xam ne boo lalee moo tax maa ngi daan wax ne li gi gën a leer mooy darab bu weex. darab boo ko lal moom lu ca nekk. waaw darab bu weex. li saxaar la. waaw darab bu weex li saxaar la. ndax fekkee ne néeg boo bëgg a xam la fa nekk lay fanaanoo yow boo la dee bu weex rek da nga ci da nga ko xam da ko gis. ma ne sama néeg ba laal di darab bi ci nekk bu maroo ci nekk xam nga yaa ngi doon wax maroo xam ndax léegi kon moom soxna si mën nay lal bu euh, su ko defee Arouna màtt dana indi dof nit ki di taxawaalu ci sën yi nit ki taxawaalu ci mbedd yi te boo ko dee xool dof bi muy dofloo boo xoolee melokaan yi muy def. da ngay xam li lii fa jaar melokan bi moy lan da ngay gis ne nit ki dina di dox ba yag mu yi ko faaxu da daw do koy seetlu ndaysan ndeysaan ñu wéré di ñoo xam non lañuy def jik jik rek faxas bopp bi tek semp aw xilam ñaan ay rabako japp te fekk bobu mom la ko sonal deug deug deug bam def lolu matti kon matti yow suma la déggé sëñ malik mat amul ben njëriñ njëriñam. matt amul njëriñ. sunu boroom sax du sàkk lu amul njëriñ xëy na xel yaa àggut ci xam la tax ak xam-xam ñàkk gëstu. ay daal moom fës na loraange moom moom ñu ma xaanee waaye am na njëriñ ci leneen xakkañ am na njariñ leneen waaw ndax fi mu tey ji nit kuy naan sàngara boo jëlee aw matt tëbbal ko ca sàngara sa bu ko naanee bàyyi. bu ya, ko ci rayé rek mu bayyi sangara ku naan sangara ba mënu ko sujale alaaji malik gey neena su jëlé li ñuy wax mat ñu koy ray ko ray ko ci tëmbal ko ci bir sangara si bu ko rek kon lolu da ngay gis ne kon fofu njariñ commencé na am ndax da ngay gis lu aram lo xamanteni bi manam day fajj lu aram lu aram luy faj lu aram amna lu mel ni mbam mbaam xuux ab jullit lekk ko dafa aram waye nit kuy nan sangara mew mbam xuux du koy faj nit kuy nan sangara nga jël mew mbam xuux tokko ko ca bu ko nané sangara kon gis nga lu aram luy faj lu aram yàlla kii maa ne faj lëndëm meewu mbaam nga xamni boko lek dafa aram loolu gars yi di façon ñaan googu ñu ñaan naan diw yàlla nga muccee ni meew mbaam xuux ci tamxarit ni meew mbaam xuux muccee ci mm-hmm. tamxarit kenn du ci euh, sotti euh, meew mbaam xuux ci cere ja gis naa euh, gars yu xoromu yi ñu koy waxtaanee mm-hmm. waaye foofee li ñu leen fi bàyyee li ñu leen ciy jàngalee rek li ñu leen ci bàyyee xel mooy maanaam mbirum paj dafa dafa dafa ruqe dafa bari ay sew-sew da gis loo xamante bi yow mi jullit araam na ci yow waaye yow loolu ñu la araamal ci biir loolu ñu la araamal da nga ciy bàyyeel ah lu araam ok moo tax waaw loolu su boobaa dañoo war a laaj borom xam foofu diine ñoom waaw waaw léegi foofu ab ab ab question la ci yéen ñi nga xamante bi araam lu lay fajal lu araam ok lu ko diine lu gisee ok <laughs> kon kon question boobu question boobu euh, ñu ngi koy laaj ñi nga xamante ni. Oustaz Alioune Sall ba xam. waaw ah, kon Mbacke kon ñu ngi koy. Oustaz Alioune Sall ak Mbacke Sylla. kon nañ ko war nga laaj ko Sa Ndiogou. nañ <laughs> Sa la de. waaw ah. Sa Ndiogou Sa Ndiogou sooyeebu bi daal mi ngi ci seen i tànk. kon Oustaz Alioune Sall ñu ngi lay laaj loolu. waaw waaw man laaj loolu. Malik Gueye mo laaj loolu Oustaz Aliou Sall ak Mbacké Sylla nu ngi leen di nuyu sama papa yo di leen ñaanal jamm suko defé kon gis nga kon mat, nit ki jëfëndiko sanggara mat bobé bu ko ci né yom rayalé ko bu naanee sangara sosé mu daan naan bu mat ma dé bu soobé yalla dootul gisati mu naanati uh, sangara kon bu ndariñ feeñ fofu légui légui ñu léral parce que xamna né ne gaa ñi mën nañ ko dag muy tasaaroo su ko défé nak dañuy léral li tax alaaji malik di laaj né lu aram luy faj lu aram di laaj jangalé kat yi diiné yi nan la ko diiné gisé moy lan ci misal nee na meewu mbaam xoo dafa haram yapp wé dafa haram maam mbaam xoo moom dafa xaraam ci julit légui nak meew mi nak soko jëlé jëlee ko ci sangara jox ko kuy naan sangara bu ko naanee mu bayyi sangara waaw ndax te ñom ñaar ñëpp araam kon nak lu aram lolo tax mu ne lu aram lu lay fajal lu lay takale lu lay tàqaleeg lu aram nu ko diini gisee <laughs> loolu way laaj bi émission sax bu ko neexal mu yam fofu ndax wax ji dafa dafa riis màttangoog waaw màttangoog li ma ci war a dolli nag ñi nga xamanti bi dañuy yëngu nak ci ay ay yëf-yëfaan di na koy jëfëndiko ci li ñu woy julmaan yi Euh, Arona matt lu garaaw a garaaw la. ci wàllu mystique waaw ci wàllu mystique lu garaaw a garaaw a garaaw garaaw yoon la woon ku nekk xaw cee xam dara. ngir mën a bàyyi xel tuutiwaayam boobu ni mu doonee poson ci doomu aadama bu fekkee ne réew mi neex naa waxtaanee maanaam lu bari dina leer te matt ko def bu doon réew mi réew mu neex a waxtaanee la dinañ ci dugg. ba ñu bari xam na ah ndeke kon bàyyi diw lii ko jàppan ah soxna si nangam lii ko jàppan ah ndeke booy sàngam lii te matt fa jaar. ci matt. moo tax yu baree bari bari bari bari bari ñu ngi dëkk ak ñun di ñu lor te ñun gëstuwuñ ko. nit dafa bari lu muy sàggane te environnement bi ci la ci la ci la lépp nekk. ngay gis tawat yoo xam ne ci kër gi la nekk nekku ci mbedd mi mi ngi ci sa biir kër gi nekk ci sa biir kër gi ci sa biir néeg bi nekk sa kaw lal bi nga pare nga bëgg a wér kooku dana jafe pour nga wér kon boo gisee mag ñi amoon ak xarañte lu leen raxaan dañ koy gëstu ci biir néeg yi nañ ko nañ fexe mu dañ fexe mu dañ kay matt yi ci biir kër yi nañ fexe mu dañ fan ye gis nga ci Europe do na setan seetaan ko di ci wax mat yi xaw leen a alakhirah ban ci ban ci def ay waxtan yu bare bare bare bare la la kon man nan ko yamale fofu ndax la ci des du mbirum waxtaane tele waye tombe bi liñ ci andil dina tax nit manam bàyyi ko xel te nit lu mu xel rek am ci jangal kon lolu bokku na ci émission bi. kon nañuy jënd dara yu weex yi diko lal ci lal yi ngir ñu mën a xaar mat ba man ko gis ba man ko moytu dara bu weex nak dorob bu bokku na ci dikoy malik gey motax xana xana motax nga sol dara ju <laughs> lu weex xam nga lu weex dama ko bëgg bu ci top moy beneen yoon bu ñëwaaté dañuy ñëw ci unku unku li muy rey kenn xamul nu mu toll. waaye ngeen bàyyi ko xel. Ah. dañ ci woo dinañ ci mës a ñëw leeral leen moom tamit ak nekkam ci kër ak danger bi mu am ak ni mu mën a yàqee nit. unk ak moom itam ni mu waaw. kon ñu Alaaji woon seen mbokk Arona Cissé vision mbokk yi matt lañ doon waxtaanee matt ngi noonu. nañuy lal dara yu weex yi tey moytu matt di génne màtt yi ci kër gi balaa mu ñuy matt ndax kat mën nañoo mattuk màtt mën na laa indil mitit woo xam ne doo xam foo koy waxee alaaj maa Guèye ko wax kon ñu nga mbokk yi ba beneen ak senevision.com la crédibilité notre credo senevision.com wóor la ñuy tëggoo senevision.com kumpa tàggoo